Sa Thiès. Hmm. proposé woon nañ ko rek rek. Hmm. problème caché moo taxoon. Hmm. Sa Thiès instant bi tamit yoonu làmbam ndax gis nañ année def na année blanche dip bu ko booy ñaar daanee ba léegi def na année blanche ñu bari ne. mbër mu ragal defit la moo tax am na combat yoo xam ne bëgg koo jël mais tey Sa Thiès instant fi mu toll boo ko doon conseillé lan nga koy wax. boo defe naa moo garga taxaw na. kii wul de pas officiellement. bon loolu lañ doon wax. souhaitons ko bu taxaw. souhaitons ko combat bi parce que tamit euh, baax na ci ñoom ñaar. moo garga moo garga baax na moo kii risque la woon baax na. waaw ah, rëgg rëgg. waaw ah oui mënoo jóge ci défaite boo xam ne bii euh, ak ni nga amee ak ni la booy ñaa daane. nga jël nga jëlaat euh, rëgg rëgg. Mm-hmm. attention xam nga Sa Thiès. Mm-hmm. combat bu muy jërë dafa war a sóor Balla da koy mettre en danger. dañoo bokk adversaire. non da koy mettre en danger dégg nga la wax. Mm-hmm. booy Niang kay bu sëkkatalee Balla Gaye euh, Sa Thiès la <laughs> waaw tey nga jël rek rek mu daan doo exposé waat Balla Gaye jëlal Garga Mbossé mhm. jël Garga Mbossé moo gën a moo gën a normal ci moom moo gën a normal sax ci Garga Mbossé ndax ñoom bu ñu daan te sa doom effet mhm. parce que ñoom ñaar ñëpp benn benn nit leen daan ci ngemb mhm. muy boo Niang <laughs> mbooleen boole <laughs> waaw ak ki moom mooy Ama combat sax wax dëgg yàlla. Luc mm. Nicolaï ndeysaan. ñu ngi koy ñaanal yàlla. Mm-hmm. waaw mu ñëwaat ak jàmm ak salaam. def ci làmb bari na. 99 mm-hmm. ba 2019 feete na 20 ans daaw ci làmb. Mm-hmm. Euh, yàgg na ci dooleem dem na ci dimbali ni ci ay xale ba ñu doon ay kilifa. investir na ci ay xale ba tey xale yooyu di employé ay nit kon ñun làmb sunu lig sunu nit sunu la ci làmb kon bu ko yàlla féexalee d'abord dañuy remercier le président de la république ak kilifa yi nga xam ne yépp jàpp nañ ci pour pour mu génn ak ñi ko ko yéene loolu ñu ngi koy ñaan yàlla quant komba bi nag mi ngi sunu kanam te yaakaar naa ne dinañ ko tëgg combat bi dina am heureusement sax contrat ba ñu defoon au départ Covid bi dafa ñëw. mayaat leen chance. waaw kon nga xam ne kon yàlla yàlla moom dëgg yàlla lu baax rek lay def. kon je pense que te booy xool actuellement. Ama Balde ku dul Modou Lo newul ci xool bi. ku dul ci xol bi parce que ñoom virus su combat bi mu ngi leen di doog a dugg ñoom ñaar. moo tax gisoo ci bariwuñu wax kenn mënoo ci wax loo kenn actuellement ku ci ne sa sa morom nga tal fi ne. kon combat boobu dañuy ñaan yàlla rek. Euh, Luc Nicolaï Enco tëgg ko parce que bu leen fàtte de. dafa am loo leen di fàtte. licence su licence su licence su Luc Nicolaï Enco. bokkul ak Luc Nicolaï. ok. licence bi tëgg bi war a tëgg combat boobu. du licence su Luc Nicolaï. Luc Nicolaï Enco la. Mhm. loolu laa bëgg gaa yi xam ko waaw. waaw ah, ngay xam leeral bi am na solo mais dafa am euh, benn booy boo xam ne ni wax dëgg yàlla mooy jën kaay. jën waaw gis ni pour mu am combat dafa xaw mën nañoo dafa xaw a difficile. Hmm. ndax tout le temps am na ay adversaire hmm. yoo xam ne ñu ngi ko doon wax. Hmm. mën naa ko limal ko ci mel ni euh, Moussa Ndoye euh, ki nga xamante ne moom mooy Modou Anta. ak ki nga xamante ne moom mooy Amaneex. est-ce que ñooñu noonu la ñuy ñuy tudd. baax na si muy ama neex muy Modou Anta muy Moussa Ndoye dañu war a jël Diène Kairé gis nga mbër su bëri ba setee moo am fulla ci li muy def sa naatangoo la te it ëpp ñu ko doole kon war nañu mën a bëreek moom mhm. moo gën ñuy xaarante te duñu daje ñoom te duñ daje ñoom. ah mais boobu ba léegi ñu ngi ci daw. te tey tey tey jii euh, promoteur yi. Euh, Diène kayre ak moo leen gënal moom it yàlla ko defal loolu suñu doom la te yàlla def na ne gars yi bëgg nañ combat. Mm-hmm. gars yi bëgg combat. mais ñett ñooñu kan moo ci gën a logique ñoom ñëpp logique na pour ñu jël ko. Mm-hmm. ñoom ñëpp logique na pour ñu jël euh, neex ku mu mujjee ku mu mujjee bëreel. mujjee bëre sax. ku mu mujjee bëreel. kan la mujjee bëreel. booy bawal ku daan booy bawal. jéen ah waaw nga ne logique am ba fooy laaj <laughs> <laughs> dëgg yàlla ah. Hmm. Ah, affaire bi neex na trop bëgguñu laa sax bàyyi. waaw mais suñu buñ duñ wax sax suñu dernière question. Hmm. mais booy yi nga ñuy commencé jóg nan nga leen gisee. booy yan yi commencé jóg. comme kan. Ah, wax nañ jéen. waaw jéen waaw ay ñoom Modja. waaw Modja waaw waaw waaw waaw caat waaw waaw waaw caat amul combat. moom ak Modja boobu ba léegi. waaw moo lañ ko wala pe combat dañ ko war a vidé. Mhm. dañ ko war a te ñoom ñaar ay naatango lañu. Mhm. ay caata xale yi yëpp heure bi waroon na fekk ñuy jouer rôle yu mag yi. Mhm. xale yi ñoo waroon génn fii ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo moo tax loolu promoteur yee ko waroon liggéey ca booba moom laa la wax dama ne la. Euh, bon li ci ne yëpp kenn mënu koo wax mais je pense que dina changer aussi aussi ñu dimbali promoteurs yi nañ leen dimbali état bi na gën a jàppale promoteurs yi man fi may lancer appel le président de la république mooy mënoo tabax lu toll nii ne nangam milliard nga ci def xale yi jël xaalis xaalis ci def foog mu am mesure d'accompagnement jox nga leen arène mais amul kii d'accompagnement boo ci boole comme yàlla dafa dogal am na feebar bu ñëw te gars yi néew nañ doole bu ku jënd licence rek mën a tëggi te doo frais d'organisation ñu teggil la ko pendant un an bu ko defee sax ñoom ñu mos recette recette recette billetage boo leen teggilee orga kii bi location stade bi entretien bi sécurité bi yaa ko moom moom moom yow yaa président yow yaa moom alkaati yi nga jël loolu yëpp gàddu leen ko un an fay ñooñu promoteur bu bu jënd bu jënd licence rek mën a tëgg kon au moins dinañ am un an yoo xam dinañ soufflé. te bu ñu jaayee biir dinañ am dinañ am benn bis. dafa loo xamante ni. Euh, hmm. yaa yaa tax sax sama xel nekk ci. Hmm. muy mbër yi dañ koy jooy. muy wàllu manager. Hmm. da ngay dégg ñu léegi manager bi leen rek moo ko moo ko amal soxla. mu jël 10 pour cent léegi manager sax moo daan dox combat mbër mi léegi mooy dox combat mais lan mooy rôle manager ci mbër. Euh, balaa may ñëw ci rolu manager manager taxul rek pour jël di pour cent dañ ko ci poussé dañ ko tanc néewal ko doole moom mu nangu ko ñu nangu ko ñoom ko nangu. ñoom ñooy deuxième personnalité ci arène ci làmb ci à part c'est le manager manager bu amul mbër du bëre ñoom nag bu ñu demee ba perte seen aura perte li ñu perte ci làmb ji mais ci ñoom la te mbër yi ñoo leen tànc ñoo ñi ñu may loxo ba ñu taxaw ñoo leen dóor xeer c'est que loolu looloo la jugul mënuñoo doon benn kuréel association ma xuloog yow mbër mi keneen di la jël balaa ñu lay jël dañuy xam li nga xuloog kii ba pare su fekkee ménager bi moo tooñ ñu jël beneen ménager jox la pour sanctionner la bu dee nag daloo tooñ nag nga jéggalu ngeen continuer waat bi ñu tegaat ko ci yoon mais loolu amul seen biir amul seen biir gars yi ne euh, euh, euh, mbër yee leen néewal doole ba pare ñoom ñu nangu néewal doole bi mm-hmm. amul solidarité seen biir attends dañu waxante dëgg man kaas naa ko ba sonn rôle ménager kaas naa ko ba sonn tey jii boo yeewoon góor gi euh, góor gi euh, Mamadou Ndaw tey jii nga seeti Baye Cheikh Diop tey jii nga yee góor gi góor gi euh, kii nu mu tutti góor gi dem yeewi góor gi nu mu tutti comment il s'appelle encore ménager yu mag yi al Demba Sey nga seet nga yeewoon leen tey ne la ne leen amatul baat dañ leen naan c'est pas vrai Baye Moustapha Diaw boo ko yeewoon tey ci bàmmeelam ne ko ménager amatul baat danaa la c'est pas vrai nañu waxante dëgg ñoom Pape mbay mii boo leen ne ménager amatul baat dañ leen naan waxu dëgg ko wax dëgg yàlla duñu l' émission sax tire à sa fin. parce la chaque bu a baax di la ñaanal laar rek que suñu papa nga. suñu xarit wax dëgg yàlla bu la neexoon nga neutre comme tamit ñeneen te boobaa tamit dañ ñëw tarbi ci yow. mais daal dañ lay ñaanal bu baax a baax. laal nag affaire yi. gën a continuer ak tàggat bi tamit nga bañ ñoo bàyyi daal. waaw waaw jërëjëf leen siyaar di leen wax nag leen seen commentaire yi hmm. na ngeen logique man lu leer laa ne wax man du ma fen man lu ma wax dafa am et puis dee leen ñu normal sunu doom yi dañuy liir kii. pourtant ñoom ñoo waaw ñoo bu nañ ma jëlee mais nañ euh, xam naa leen xam naa li may wax. <laughs> nañu nañu def commentaire loolu xam nga titre yi léeg-léeg nga liir ko rek mer fekk li ci biir newul noonu. Mm-hmm. bon baa ngi leen di nuyu dama leen di suivre ñoom yépp ah. dama leen di euh, am na ci boo xam ne sax. Mm-hmm. Euh, daf ma ne man li mu wax sax ma dama ay ree ma jàpp. Mm-hmm. per nga yaay bandi ni ngay posé question yow da ngay kii mbër yi toi mais xam nga rek euh, yooyu yëpp euh, xam nga ku ne ak ni ñu lay yaree la waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax ñoom it am nañ solo ndax bu ñu leen du woon liir euh, di leen topp doo leen am ay vues waaw waaw vue ba ma ngeen ba ngeen mën di faye ko ah. waaw seen patron yi aussi nee leen ñun toll nañ ci ñu ñuy fay waxal ak baabu borom étage baabu ah. baabu alaaji ngañ jaañ yi ngeen ci am dee ñu si jox ñu si mos. waaw boo ko dindi nag. dee leen ci dee ñu ci jox baabu dee ñu ci jox ñu ciy mos. ñun ay magi làmb lañu léegi. xam nga ñun nag euh, li mag li mas mos mag li mag li mag mosoo ko gën. waaw nag ñuy sooraale et puis nag ñu yónnee dara ñu ci mos parce que vues yu bari na tey euh, xam nga comme yi suñu jarbaat lañu vues yi nag nañ ci nañ ciy mos. bu ko dindi de. <laughs>